salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie du ñu topp suñu tutoriel te dañoo ñëw ci loo xamante ne lu am solo la euh, ñu bëgg la wax bu dee da nga bëgg envoyer fichier wala nga bëgg transférer benn fichier jëlee ko si benn serveur bëgg ko yóbbu beneen serveur. imagine tey nga nekk di travail ci ci cloud wala ci benn VPS benn serveur serveur distant nga bëgg copier benn fichier foofu daal koy indi sa machine locale naka ngay def voilà euh, am na méthode yu bëri mais tey dama lay indil méthode bi gën a simple ak tamit bi ma yaakaar ni moo ëpp sécurité voilà loolu liñ koy li ñu koy may mooy benn outil outil de ligne de commande la ñu naan ko SCP maanaam Secure Copy voilà is a command line utility that allows you to securely copy file and directory between two location voilà mu ni benn euh, bon outil la boo xam ne da nga koy utiliser ci sa terminal pour copier benn fichier wala benn dossier mu nekk loo xamante ni lu ama am solo la ok léegi euh, ma wan leen nu ñu koy defee premièrement dama leen wan euh, fichier bi nga xamante ni moom laa bëgg copier voilà damay connecté wu ci sama VPS outil yi ngay soxla premièrement mooy nga am benn command line benn terminal boo xamante ni mën na dugg ci euh, ci sa serveur voilà parce que am na terminal yu bëri yoo xamante ni boo boo yenn commande yi du ko xam voilà man nag bi ma taamu mooy git bash ok léegi léegi damay tapé sama noowu kii quoi serve kii bi euh, adresse IP au serveur bi moo nekk SSH ma def nom utilisateur bi def adresse IP bi daal di connecté wu. Euh, bu nekkee daal laaj mot de passe nga dugal sa mot de passe pour la laajul tamit nga dem directement parce que am ñoo xam ne configurer directement pour dugg sans mu laaj leen mot de passe. ok léegi mu laaj ma mot de passe mu dugal euh, benn mot de passe bu ma def fii ok ñu xaar léegi mu ñëw.

premièrement ngeen jàpp bu baax comme dossier fi mu nekk par exemple damay def PWD pour wan leen dossier bi ma nekk mooy xam Xarala test Copaay léegi ma génn ñu wan leen voilà léegi génn naa léegi fii lañ ko bëgg indi te euh, LS ko def voilà fii lañ ko bëgg a gis ngeen dossier bi moom fi nga ko bëgg indi amul dara mi nii amul benn fichier bu ci nekk voilà léegi copier bi nu muy demee am na euh, léegi dañuy utiliser SCP ñu def léegi SCP. def kiiwu serveur bi maanaam adresse bi kii euh, nom utilisateur bi moom ngay njëkk a def nga def arobase def adresse IP bi waaw euh, nga def ko ba mu jeex voilà léegi boo boo ko defee par da ngay def dossier bi nga xamante ni fa la fichier bi nekk par exemple xam xarala maanaam xarala utilisateur test euh, copaay moy dossier bi léegi ci biir dossier bi am na fichier index point html fichier fichier bobu lañ bëgg euh, copier nak mo nek ni léegi fan la ko bëgg indi fi ma euh, sama machine sama machine fi toll comme ni ngeen gisse mi ni c project test copy test scp voilà ma def c project test scp Lagi ñu xaar mu ñëw mëna laaj mot de passe bu laajé mot de passe nga duggal sa mot de passe voilà dégg nga dugal sa mot de passe léegi ñu xaaru gis nga copier na ko gis nga moo nekk nii léegi ñu def ls xool voilà comme ni ngeen gisee index point html te sans commencement bi gisu leen ko fi woon voilà mbokk yi doon seen xar xarala ak dem yaakaar ne jariñ ngeen tutoriel tutoriel bu baax leen wax ngeen abonné ci chaîne bi daal koy partager mën nga tamit connecté wu ci site bi demande information wala lépp loo bëgg xam ci programmation en wolof voilà ba beneen yoon ci beneen tutoriel